nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant Maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan yàlla kenn mënula wax laylatul xadar fii ci senegal rawatina ci yoonu murit te tuddoo soxna Maymuna Mbàkke bintu Xaadim Rasul mi ngi gane àddina ci atum 1925 ci Jurbel bi Serigne Touba nekkee ci résidence surveillée dëppoog juróomi fan ci weeru koor waa juróom wu jigéen di soxna xari si la ñu gën koo xam ci soxna xari daaru moom soxna may bi fi Serigne tubaa di bàyyeekoo ci atum 1927 ñaari at rek la amoon moo tax magam ja di Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo njëkk a nekk xalif général des Mourides jël ko taxawu ko bu baax a baax ci am njàngam ak yaram ginnaaw bu mokkalee alxuraanul karim jàng na xam-xam fànn googu ki nga xam ne moo di Serigne falu Mbacke moo ko ci taxawu ci waa waajuram ya soxna may Maymunata Mbàkke doon na ci ñoom ak sell dal bëgg alxuraanul karim ak xasida waaye nekkoon jëmm ju mënoon taalif ak a jàngale nekkoon it ku mënoon a yar soxna may bëggoon lool waa waajuram wa di cheikhul xadim waaye daan ko liggéeyal toolam yu bëri yum amoon la ca daan bàyyeekoo daan ko jagleel daaray kaamil nekk ci dëkk bi ak daaray alxuraan yi rawatina guddi gi nga xam ne moo di laylatul xadr mu nekkoon nit jëmm ju mënoon a joxe ñam kon jëmm ju bëgg lool alxuraanul karim ak xas yi day waajuram wa di cheikhul xadim soxna Maymunatu Mbàkke ñu joxoon ko Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Thierno Birahim mu am ca soxna Baali Serigne Modou Mahfouz ak soxna maam Fatim mi nga xam ne dafa teel a génn àddina soxna Maymuna Mbàkke dundam yépp mu jagleeloon ko laylatul xadr lépp a ngi bàyyi ko ci atum 1952 ci ay reer yum toggaloon Cheikh Mouhamad Fadal Mbàkke mi nga xam ne jamono yooyu moo fi nekkoon xalif général des Mourides ñëw jébbal ko ko ginnaaw bi ci la ko sëriñ bi jox ndigal lu muy taxawul li nga xam ne moo di laylatul xadr gi fonkoon leelatul xadr lool daan ko taxawu ci mboolem dëkk yi nga xam ne newoon na fa daarul moxti daarul ma naan ba ci daarul waxaab mu amoon ni tool yoo xam ne la ci daan bàyyeekoo danga daan jagleel guddi gu màgg gi waaye daan yar ay jur yoo xam ne dañ ko ci daan def ginnaaw daarul waxaab ci la soxna may indi laylatul xadr gi di ko amalee fii ci Touba Mbacke ginnaaw bu mu ci waxtaanee ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ca njëlbéen ga ñu ko daan amalee ci kër soxna may gi nga xam ne moo nekk ci Touba mosquée daan fa amal ay bernde yu yaatu jàng alquran ak xasida bëri na kilifa yoo xam ne daan nañu fa teew rawatina ñenn ci doomu sëriñ Touba yi ñu mën caa jàpp sëriñ Abdoul Xaadir Mbacke sëriñ Mourtada Mbacke ci atum 1994 mu jot ndigal ci Serigne Saliou Mbacké ngir ñu indi laylatul xadr gi di ko amalee ci li wër jumaay Touba ji daan fa amal ay tànt ak njàng mu yaatu ci wàllum alxuraanul karima xasida mbooloo mu takk lool daan ko teewee ñu fa daan dundalee guddi gi ba bët set moo tax lépp lu guddi gi laaj da ci daan taxaw temm loole sax moo taxoon mu taxawaloon résidence soxna may bi nga xam ne moo nekkee ci HLM ngir dalal fa gan yi ak kilifa yu mag yi nga xam ne dañ daan ñëw ci guddi gi daan fa amalit bernde yu yaatu ak cérémonie officielle yi soxna May mi ngi fi bàyyikoo ci atum 1999 wuy ji suñu borom bi mu amee juróom-ñaar fukki at ak ñeent ñu denc ko ci penk jumaa ji sëriñ Modou Mahfous Mbacké mi nga xam ne mooy xalifaam taxaw temm di lawal liggéey boobu nga xam ne moom la fi juróom wa bàyyi woon ba ci soxna baali mi nga xam ne bi mu fi bàyyeekoo yàggul ñuy amal laylatul xadr waaye taalibe yi di ko ci fàttaliku di ko ñaanal yàlla yokk ay leexam te taas ñu ci barkeem joxoon na ab jël alxuraan ngir bàyyi ba fonkoon alxuraan yàlla ko fay ci alxuraan ci barke laylatul xadar